salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV bienvenue mardi 3 août 2021 Babacar ma lay ziar maa ngi lay dellu ziar Abdou Babacar mu mel ni yàlla saa borom dafa nangu suñu ñaan ndax démb ba tey ndox maa ngi wàcc ci réew mi macha allah mu ngi wàcc muy loo xam ne wax dëgg yàlla ak cant la ñu ngi ñaan yàlla rek na ànd ak jàmm ak ni mu sedd rek yàlla na ni seddale yàlla na ni seddale réew mi yëpp seddale ko àddina bi yëpp ndax ku ne xam ne ne taw moom mhm. dafa bokk si dundu doomu aadama mhm. booleeg doomu aadama ci àddina rek mhm. amal na ko njëriñ mhm. taw itam yaakaar naa ne su wàccee rek xam nga ñun ñi nekk ay kaw kaw di ay baykat mhm. nga man bi ma tabaski ja dem ak yaay dama gis dugub ja mel ak ga ak ñebbe ja lax lool lool bay waaj a wow defe naa tey bu lu mel nii dikkee wax dëgg yàlla dineen santaat yàlla bu baax a baax ah julliwaat ci nabil Mustafa sangu sangi sallallahu alayhi wa sallam di la nuyu Abdou di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin kon su ko defee ñu daal di dem seetaan revue daal di dikk siwaat ci plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 3 août 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëgle kaay sunu lamb la ñuy xëy doore ko sunu lamb tey ka ca xëy fës moo di Bira mi nga xam ne moom mooy njiital lamb ji yëgle kaay bi nag la mu xëy xamal nu ko daal nee na fi mu nekk nii moom maanaam lamb ji ngir ñu ubbi ko ngir gaa yi mën a léewtoowaat ñu bëre reporter yi mën a wax amateur yi mën a seetaan daal bu bëggee dégg-dégg arène nationale moom 5000 places lañ fa fas yéenee maye bu dee Iba Mar Diop la stade Diop ba tamit 2000 places duñ ko passé te itam képp kuy dugg si da nga def la nga xam ne ni maanaam mooy takk sa ab masque te te doo ca yem da nga jël sa ay loxo raxas ko ba mu set wecc wecc ak la nga xam ne ni moom moo di raxasukaay ya yemuñu ca leneen loo xam ne tamit dañ ko cay bokk maanaam i tamit sa carnet de vaccination bi wane na neew ñàkku nga daal di nga ko wane soo ko defulee moom jàppal ne maanaam làmb ja moom bu keroogee doo ca dugg ne nañ nag mbir yi moom mooy tax làmb ji ñu mën koo commencé waat sunu làmb moo xëy tey wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne tamit ku préparé woon na ay kombaam ba taxaw di fas yéene bëre muy Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi ne na maanaam daal Balla ay plan boo bëggee dëgg-dëgg moo sàmbulewu maanaam moo jaxasoo jaxasoo goo xam ne gu doye doy waar la ndax la ko waral mooy reportu combat ak Bombardier te ku ne xam na ne bu ca jóge woon mu nga fasoon yéene jëmaat ci yeneen combat yoo xam ne mu ngi ko doon waajal moo xam digganteem ak booy Niang la Gris Bordeaux ba ci Eumeu Sène waaye yëglikaay bi ne soo bëggee dëgg-dëgg lépp fi mu nekk ni daal jaxasoo moom def na ko moom Balla Gaye 2 ba bëri muy Forza ak paka la Forza moom la mu xëy xamle daal nee li am ba des daal nee na mbir yi moom loo ci mën a dégg moom nee na ak lu situation bi nu mu mën a demee rek jàpp na ne des na ko régler te itam nee na lii moom dina yàq waaye am na yàq goo xam ne jàpp na ne munu caa yegg lool lool ndax jàpp na ne ñoom bu dee ci ñoom la seen côté ay sportif lañu lii jaaxalu leen dañuy continuer rek ci seen ab liggéey keneen ka nga xam ne moom la waroon a bëreel muy paka la Pakala la tamit ka mu xëy yërëm moom ba di ko wax moo di Gaston Mbengue ma tëgg pakala daal nee na Gaston Mbengue daal wax dëgg yàlla yërëm naa ko ci bileb combat ndax itam dépassé sa xaalis bu baree baree bari ñu dem ba dernier moment ñu reporté ko pakala jàpp na ne mbir gënu koo metti moo tax jàpp na ne daal maanaam maanaam moom promoteur boobu day ku ñu war a dédommagé la ak yeneen sax ay promoteurs yoo xam ne ñu ngi ci làmb ji jàpp na tamit daal moom xale la mu ngi liggéey ab liggéeyam tey itam dafa fas yéene xaar combat saa yuñ ko tëggee rek moom pakala bu keroogee bu ñu yëgee ca géew ba dina defante keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi lam ko tudde daal maanaam am mooy le seni de Soumbédioune muy fi mu nekk nii daal moom Diène Kaïré wala boog moom Diène moo xëy tey seq waxtaan ak Mamadou Lamine Ndiaye Diène nag la mu xëy xamle daal ne état bi ci boppam daal fi mu nekk nii moom moo war a jàppale waa làmb ji appuyer leen may leen loxo ngir ñu mën a avancer dem seen yoon kenn koo xam ne nii moom loo ci mën a dégg kombaam tamit waroon na koo bëre waaye yëglikaay bi ñëw na tey seq ak moom ay wax wala boog mu ngi fay wax muy rëg-rëg ñu nu ko xëy tey wan mu yenu sayu dugubam rëg nag wala boog takkab dugubam rëg daal la mu xëy xamle ay révélation la xëy tey def ci yëglekaay ba nga xam ne moo di sunu làmb jëm ci combat ak ka nga xam ne nii moom moo di guy gi beneen xale boo xam ne ni tamit ci làmb ji la ne yëglekaay bi ñëw na ci moom ak six galaa yi nga xam ne jël na ko maanaam juróom benn galaa yoo xam ne gañe na ko ren ak six mille six millions cent cinquante mille francs ak benn 4-4 boo xam ne gañe na ko muy Serigne Ndiaye numéro 2 yëglekaay bi ne nag boo bëggee dégg-dëgg fi mu nekk nii day marqué na xele nit ñi bu baax a baax a baax moom Serigne Ndiaye ndax nag lambi doxale fi mu nekk nii ku jara bàyyi xel la moom xale boobu nga xam ne mu nga nekk ci écurie Ndakaaru yëglikaay ba moo xëy ñëw dina ko wax feneen foo xam ne dan fay dem muy les arènes les arènes moom lëm nu xëy xamal daal maanaam dafa dikkaat ci combat boo xam ne amoon na fi doxoon ci diggante Boy Niang doomi Dégol bu Pikine ak Lac de Guiers numéro 2 bu Guédiawaye nekk ci écurie Walo yëglikaay bi ñëwaat wan ñu leen aw photo nañ doon lewaatoo yi yëglikaay ba yemu ca moom les arènes la mu xëy jàngat ci xalima ak Aïssatou Faye ñaa daal nee boo bëggee dégg-dëgg Lac de Guiers numéro daal daal daa mel ni Pikine moom moo fay roi ndax nag boo xoolee sortem yu mujj yëpp waa Pikine la ko seqal te ku ci ne am na ci yow ndam muy digganteem ak Eumeu Sène wala boo digganteem ak ka nga xam ne moo di Boy Niang yëglikaay ba xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii bëri nag Lac de Guiers 2 bëri Eumeu muy Modou Lo bi xëy na tey dikkaat ak aw photo ci digganteem ak Eumeu Sène kaw ba ca amoon yëglikaay bi di lee arènes daal nee na kaw bi daal na ko yëglikaay ba tudde daal mooy le kaw de tous les temps d'état daal la ko yëglikaay bi xëy tey tudde ndax nag jàpp na ne façon kaw boobu moom pour nga gis ko lu raara raar la donte fàttali nu kaw ba nga xam ne amoon na ci diggante Malick Niang ak Adama Diouf moom les arènes ñëw na dinu wax lu mel ni ki doon keneen koo xam ne yëglikaay bi dikk na ci moom muy Bombardier ak MMA bi yëglikaay bi nee na soo bëggee dégg-dëgg la vingt cinq septembre bi nu jëm daal moom ak Zorom la baneer ñoom ñaar ñoo war a daje yëglikaay bi nag nee na Bombardier ci moom les arènes moo xëy tey samp boobu laaj keneen koo xam ne yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom mbuy ndongoloo mi nga xam ne fi mu nekki daal maanaam ci lu ñuul kuk wala guddi gu xam ne bët setagul ci la nekk yëglikaay bi ne boo bëggee dégg dëgg daal ay defa tam bëri na fi mu nekk ni rangaloo ba yegg ca lool moom mi nga xam ne moom mooy ndongoloo yëglikaay ba moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mel ni ki tey ba tey bu nu continuer daal yëglikaay bi tam ñëw na ci la nga xam ne ni moom la ñu doon waxtaane démb muy waa CNG ak ña nga xam ne ñoom ñooy acteuru làmb ji ak la nga xam ne moom la ñu nar ngir làmb ji mën a ubbiwaat yëglikaay bi ñëw na ci buñ demee Equivox TV nag moom lan fay fekk mooy la nga xam ne moo di arina Arena Hebdo Ibou Ndiaye Obali ak Serigne Ndiaye numéro 2 ñoo fa nekkoon démb Serigne Ndiaye numéro 2 nag moom nee na diggante mag Sokosim nee na abaana jeex na xanaa beneen promoteur tëgg ko waaye nee na bu dee diggante mag abi farxaat la moom nee na foofa làmb moom amatu fa ndax moom promoteur bi la muy wax respecté wu ko te moom ay kilifaam daal xamal nañ ko ne foofa moom làmb amatu fa tey suba waxi noppi Ibou Ndiaye ëbbali nag moom moom ma nga xam ne waroon naa bëre far ñu dàqub combat mi tam moom itam ma ngay wax dana daal mu ngi toog di xaar Pape ni saa bu ñëwee rek danañu bëre yemuñu ca ñoom ñaari mbër ñëw nañ tamit ci mbëri VIP yi xamal leen ne daal ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ jàppe mbëri simple bés bu leen fekkee foofu ñoom mbëri VIP yi bu keroog nañ xam ne bëre mooy dëgg te itam mënoo nekk ci benn combat am at wala ñaari ba pare bëggatee làmb ñoom Ibou Ndiaye ak ñoom Serigne Ndiaye mel ni ki ñoom jàpp nañ ne mbëri VIP yi kon loolu ñu jàpp ne na daal gis nañ ne kon la ñuy xalaat ak li am du benn ndax jom ñoom jàpp nañ ne chaque jour ñu ngi def li nga xam ne ni moom mooy ay compétition gannaaw ba ñu seetaanee revue dikk ki nga xamante ni moo di sunu làmb daal di ñëw ak ñun mardi 3 août 2021 daal di ñëw ak ñun ci xëttam bu njëkk reprise des combats de lutte le CNG exige un pass sanitaire. waaw euh, waaw exige un pass sanitaire. Mhm. pass sanitaire bi mu exige maanaam ba yan pass sanitaire la. waaw maanaam lu mu teg lu mu teg nee na 5000 places à l'arène nationale 2000 euh, à Iba Mar Diop. port de masque obligatoire. Wow. lavage des mains. Wow. présentation du carnet de sa de vaccination. Mm -hmm. pour pour redémarrer les les activités. ça veut dire que kon daal fi mu nekk nii moom li am ba des mooy bu fekkente ne gars yi bëgg nañoo wàccaat ci làmb ji bëri abdu mooy. Mhm. ah bu dee arène nationale la. Mhm. juróomi junne place lañ fay maye. Mhm. xam nga arène nationale vingt la ñaar fukki junni la ak ñaar. ñu ne kon cinq mille la ñuy maye. bu ne moo di Iba Mar hmm? yemuñu ca. maanaam kuy dugg di nga takk sa masque. Mhm. di nga def li nga xam ne moom la ñuy dara xas sa ay loxo mhm. doo ca yem tamit mhm. carnet bi nga xam ne mooy wane ne yow ñàkku nga di nga ko wane muy carnet de vaccination yooyu mooy yi ñu teg euh, defe naa nag mbir mi fi mu nekk nii foofu lañ toll ah. foofu lañ toll Babacar foofu lañ toll te mbir mu ne nag su dikkee soo ca bëggee mucc da nga koy nangoon na ko euh, yàlla dogal wala na mu dikkee parce que comme xamal nañ ñu ne ñàkk yi bokk na ci li nga xam ne boo ko xasee def moom euh, yàlla mën na laa muccal ci feebar wala même bu la arrivé tamit du la rey ah kon yaakaar naa te loolu ñu ko wax ay docteur lañ ay borom xam-xam lañ mm-hmm. defe naa ne kon loolu ku ne war na si bàyyi xel nga xam ne tamit euh, maanaam sénégalais bu ne war nga jóg dem ñàkku ji mm-hmm. yaa a tax nu man di dajawaat mm-hmm. nga koy santé yi defe naa ne kon loolu nga xam ne ni parce que démb daje amoon na ci CNC bi ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur de yi promoteurs yi ak ñeneen ak ñeneen gis naa vidéo yi biñu paree tamit ki nga xam ne kaddu la yor ci promoteur suma jumale muy Aline Gueye borom line production woo na woota woo ma téléphone am lu ma ci jot a rencontré comme li nga wax ni mais suba daal bu soobee yàlla lañ joxante rendez-vous mm-hmm. nationale képp kuy acteuru làmb moom mm-hmm. woo nañ la fa suba à huit heures du matin mm-hmm. pour nga ñëw ah ñu xool nu ñuy def vaccination bi ku nekk mën a vacciné pour saison bi mën a démarré waat démarré waat loolu dina tamit dina nekk lu am solo loolu bu amee dina dina baax ci promoteurs yi waaye dina baax ci ñi nga xamante ni ñoo di mbëri mhm. euh, ki nga xamante ni moom la sunu làmb xëyee ci xëtamu njëkk du kenn ku dul Balla Gaye 2 le fils de Double Less mhm. combat contre Bombardier renvoyé euh, ba Boy Niang Gris Bordeaux et Eumeu Sène en 2022 mhm. les de Balla Gaye 2 chamboulés waaw parce que boo xoolee combat yu yëpp amoon naa defoon nañ planification bi ba pare ci côté moom euh, maanaam coté bi maanaam bu xam nga waroon na bëree ak Bombardier. Mhm. le 31 juillet. Mhm. bu ci jóge woon mu ngi waroon préparé wu jëmaat moo xam boo ñaa lay war a ba la ci teg. Mhm. wala giri wala Eumeu Sène. lépp ay plan yu mu tegoon la. mais bu ñu demee ba dernier moment ñu annulé li nga xam ne wala ñu aj combat ak Bombardier. ak yeneen i combat. sax veut dire que kon ah dina jaxase li nga xam ne moo doon plan yi nga xam ne moom la tegoon mais bon olof a koy wax bu yoon jeexul waxusul jeex. yaa ngi dégg. olof njaay ne na bu ndox tuuroo an bàq fay des mhm. ñu ne leen direet nañu rootiwaat mhm. kon ñoom dañuy rootiwaat rek mhm. maanaam ça veut dire que dañuy defaruwaat xoolaat yan plan la ñuy defaat pour que mën a jëmaat ci combat yi comme combat yaa ngi fii signé na contrat yi te war na ko bëri insha allahu rabbi euh, defe naa ne kon dina amaat yeneen plan yoo xam dina ko teg moom Balla ak staffam pour mën a demaat ci ay combat euh, sunu làmb daal di ñëw ñun ci ki nga xamante ni moo di Pakala la chef de file de Mbour Montagne j'ai eu pitié de Gaston Mbengue waaw parce que euh, yërmande ak kurus ak yu mel noonu mhm. lay wax mhm. te itam li tax mu wax ko jàpp na ne li mu dépensé ci xaalisam mhm. moom Gaston ak yu mel ni kii noonu ba jàpp na ne état war na leen mën a dimbali effectivement wax na dëgg parce que euh, xam nga Gaston Mbengue euh, dafa nekk nga xam ne tey wax dëgg yàlla ci côté làmb ñun waa dañ ko war a jël def ko euh, ki nga xam ne icône la te loolu la yàlla dogal doon na ko sax parce que tamit bon 92 ba tey dama koy faral di rappeler yàgg na nga nekk ci làmb di tëgg ay mbër tëgg ba tëgg na mbër ah. mbër mu bëre ba bàyyi bëre mu continuer tëgg doom ja mhm. la preuve jën kayre ak booy kayre mhm. dëgg la yaa ngi dégg mhm. ak ñeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañ ci dikkaat si ay dégg kon kooku defe naa ne tey bu demee ba dépassé xaar ba mu dépassé combat yi mu taxawal mhm. yëpp yëpp ñu dem ba dernier moment ñu renvoyé ko mhm. paka la loolu muy wax ci yërmande ji ci côté Gaston mhm. loolu wax dëgg yàlla lu am la te itam noonu la dale ci promoteur yëpp ndax ku ne gis na ne Pape Abdou Fall tamit ku sonn la ci Papa Sow ak Siteu depuis ñaari a ngi nii ah yeneen combat yoo xam ne nii ñu ngi fi buñ ko doon lim duñ fi jóge tey waaw Euh, ki nga xamante ni moo di Forza war a waroon a euh, bëre ki nga xamante ni moo di Pakala euh, Forza être prêt la situation peut se régler à tout moment. waaw jàpp na ne à tout moment rek moom li mu wax dëgg la mhm. situation moom mën na te te itam dina réglé wu. Mhm, incha allahu rabbi loo ci mën a dégg Abdou. Mhm. àddina du doomu aadama mënul di dund te du am ay. jafe-jafe mun ta jafe mënut a ñàkk déedéet mhm. loolu mënta ne c'est impossible maanaam di dund muy neex rek mhm. loolu bu fekkente ne yaa yaa ngi ci nekk moom war ngaa tiit sax war ngaa xoolaat sa bopp xool sa bopp mhm. des nag ay jafe-jafe ñëw mënut a ñàkk Youssou Ndour waykat bu mag ba noonu ne bu jafe-jafe yi yëg seen doo ah bu tax nga nelaw ba yandoor bu mu tax nga nelaw ba yandoor <laughs> yaa ngi dégg waaw et puis wax na dëgg bu mu ñu nelaw loo ba yandoor li ci am rek mooy jafe-jafe yi ñëw na jaaxal na nu nañu xool li nga xam ne nii moo koy saafara ñu nekk ca bu yàggee rek comme ni ko Forza waxee situation bi dina soppeeku te bu soppeekoo incha allah rabbi ku ne demaat ci la nga nekkoon mhm. waaw euh, ki nga xamante ni moo di Reug Reug sunu euh, na da xamoon nag mhm. mhm. ko xam-xam na tamit ci mi nga xam ne nii tey moom su waree wax day wax day wax day wax de waaw moo tax moo tey guy gi it noonu la mel muy ñaar ñoo xam ne daal xam daal Babacar combat yi ma gënoon a neex ci ci ci ci ci saison bi ren. waaw combat bi ci la combat bi ci la combat bi ci la combat bi bokk. combat bu naroon neex macha allah. Euh, sunu lamb daal di ñëw ak ki nga xamante ni mooy Serigne Ndiaye 6 gala remporté 650 euh, astaghfirullah million millions 150 mille francs collectés. Mhm. une 4-4 Serigne Ndiaye de marque les esprits. waaw maanaam juróom benn galaa yoo xam ne gañe na ko parce mhm. su ma juumulee sept galaa la jot a bëre rek mhm. perte benn la ci perte yaakaar naa mhm. mooy bi ko Franc di daan fi arène nationale ba mu ci jógee galaa yi des yëpp bu mu ci ñëw da koy gañe muy six galaa yoo xam ne gañe na ko boo xoolee bi bi ñu ko invité fii ci arena hebdo bi mu ngi koy waxaat mu ngi koy leeralaat loolu nag la yëglikaay bi topp ci xaalis bi ni mu toll maanaam six millions cent amewut ci làmbu dóor ji 4-4 bi. Mhm. mais ci lit sans frappe bi la amee 4-4. Mhm. te dem bi mu ñëw fii la gaara 4-4 am. dëgg la ah. Mhm. kon loolu tamit macha allah am na solo trop kon di ko félicité bu boo xam ne mu Serigne Ndiaye 2 mhm. bokk na ci ñi nga xam ne ni ëllëgu làmb seen loxo ñu ngi seen loxo insha allahu rabbi waaw ak ñoom ak ay ak ak ak ak ñi bokkal génération yépp ah. mhm, macha allah ni moom mhm. Euh, les arènes la vitrine de la la vitrine de la lutte sénégalaise daal di ñëw ak ñun ak li nga xamante ni ci xëtam bu njëkk ñu gis photo Boy Niang ak photo ki nga xamante ni moo di Lac de Guiers deux dernières sorties Boy Niang et Eumeu Sène balayé Lac de nouveau roi à Pikine maanaam mooy roi bi Pikine mhm. parce que sortem yu mujj fa la ko def mhm. te itam ci biir arène nationale bi la ko def ak ñoom mhm. ku ci ne moo am ci yow ndam kon ndax yaa fàttale ko digganteem ak Boy Niang Kera combat ba bañ ko tasee coow li bëri woon na waaye moom mu jàppoon ne daa daan ba dugal recours niveau du CNG naa ba recours ba génnee lañ ko jox mooy ndam moom Lac de Guiers ko ne yaa daan Boy Niang ñu jóge ca mook Eumeu Sène tamit ñu bëriwaat fa ci arène national ba ñu yàggul dara gis nga fañ mujje mooy mhm. ah ba làmb ja jeexee tamit moom lañu yëkkati loxoom ne ko yaa ah, yaa am ndam mhm. kon daal yaakaar naa ne moom tamit euh, fi mu nekk nii moom mhm. moom Lac de Guiers de boobu ba tey daal ah euh, mu teglante yépp biir Pikine la koy amee moo bi jàpp ne moom mooy ruwaawu Pikine fi mu nekk nii parce que nag foo am ci ndam boo ñaa am ku ci ëmb seen ci biir Pikine te defe naa ne ñooñu tamit ah, su la su ko su ko neexee doxee nu ko neex. biir Pikine waaw actuellement waaw. <laughs> Eh, les arènes daal di ñëw ñun ci combat bi nga xamante ni moo amoon ci diggante Modou Lo ak ki nga xamante ni moo di Eumeu seen du 31 juillet 2019 le pire KO de tous les temps. waaw kaw la boo xam ne dete su ko fàtte mhm. ndax kaw boobu Abdou li ci garaawoon mooy mhm. kër am na ay reporter yu yoroon micro mhm. ba tey mënuñu ax ne dóor na ko mu daanu xam nga lu tax dañu tiit dëgg la waaw parce que action bi ni mu demee la ni mun ne action bi demee moo tax am na loo xam ne dañuy def bu ma olof lu la bett man la. lu lii dafa dafa doyoon waar. trop mhm. trop nekk kaw boo xam ne vraiment man ko yëglikaay bi tuddee. Mhm. ah euh, le pire kaw de tous les temps. Euh, c'est normal parce que kaw la boo xam ne bu extraordinaire la woon mais lamb moo tëddee noonu parce que tamit bon ñoom ñaar ba ñu nekkee ci géew bi di la ko mhm. wala boog moom itam lii ko Modou def moom la ko bëggoon def mais nag comme li ñuy wax rek ñaar la bu ñuy wutante moom des fois day am koo xam ne. yàlla mën na def ut ba mu tombe fi baax. du Kera moo tombe fi baax. dóor ëmm mu daanu. ëmm tamit jógewaat ca defaruwaat ñëwaat jëlaat combat. ba tey gis nga ko mu ngi combat. Euh, diggante ak ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye 2 euh, di félicité Modou Modou nekk mbër moo xam ne dama naan mbër mu jafe xam la Modou dafa jafee xam de <laughs> naa ne day làmb ñu moo la ci gën a sonal <laughs> waaw moom ak kama ah gis nga gis nga daf maa lakkal waaye dama dut moromam man Modou Lo duma moromam Modou Lo maa Modou Lo maa ko mag keroog dégg naa la mu naa la kaa ah. kaa mu wan la yoon bi de yoon bi te moom maa ko man man bi may takkaaw moom ñu muñ ta takk soxna dèjà takk ñaareel daan ma kaay ma woon. ñu koy nuyu di ko ziar. MMA face à Jérôme Le Banné le 25 septembre choc risqué pour Bombardier. waaw parce que bon loolu choc risqué la. Mhm. waaye dama naan àddina lépp risque la. lépp risque la parce li tax lépp di risque mooy. Mhm. bi nga xëyee sangu ba set. Mhm. toog sa néeg di ndékki. sax xamoo ci sa bopp dara. parce que li tax mooy lépp. noonu la yàlla yàlla moo yor lépp. Mhm. mais bon bu ñëwee risque nag xëy na ci côté sport. Mhm. maanaam ça veut dire que Bombardier fi mu jëm parce que Bombardier ku ne xam na ne. Mhm. Mm, mu ngi ci combat. yaa ngi dégg digganteem ak Balla Gaye dañoo waroon bëree. tey boobu combat reporté nañ ko xamaguñu kañ lañ ko war a bëree. le 25 septembre. mu mag sërëm le Banar. ñu war a daje ci MMA. yow te loolu loolu moo tax yëglikaay bi jàpp ne soog risqué la. mais Bombardier tamit dama naa sportif la bi nga xam ne tey. wax dëgg yàlla dama naan ci sport mhm. actuellement gisa gisa gisatuma ci sama gis-gisu boppam ah. mhm. loo xam ne lu ko ciy jaaxal lu ko ciy jaaxal sérieusement parlant mhm. parce que tamit loo xam ne la defu ci ñaarat defu ci ñetta defu ci fukkat yàgg na ci te bu mu ci duggee ba tey tamit hmm, parce que Bombardier dafa nekk mbër bu nga xam ne bu jara di li nit ñi la bi muy dugg ci làmb di ñëw dakaar di bëri moom mbuur la daan takke di ñëw mbër yu bëri dañ daan jóge seen localité ñëw ndakaaru ne ci ci écrit mhm. di bëri mhm. moom nag moom mooy seul mbër bi nga xam ne ci li ñu seetlu mhm. wala ci loo xam ne lu am la boo xam ne moo dem mbuur def fab écrim ah su bëree jotee mu ngemboo mbuur ñëw bëre si Dakar ba nekk Roi des Arènes fois yaa ngi dégg. dugg ci MMA. wane ci boppam. yoonu MMA moo ko ubbi. ñu ne déet ne waay am na sax ay bëri yu mu doon def turki la xaw ma affaire yooyu. ñu dëj ci kaaf yi. yooyu yëpp gis nañ mu di ko def. kon dama naan tey moom ci côté sport de combat amatu ci loo xam ne nii waaw lu mu lu ko ci jaaxal la quoi. fi doit rëy waaw non loolu loolu mooy ñaareelu tur ba. kay fit kese la. CNG rencontre ak acteur. rencontre CNG acteurs de la lutte hier passe sanitaire et mesures barrières comme solution. waaw mooy li ñu waxoon sànq rek. 5000 mhm. places yaag 2000 places yaag. Mhm. masque yaag. Mhm. ñoom seen ak yu mel ni ki noonu. ah loolu daal mooy fi mu nekk nii mooy loo xam ne xam naa bu subaa nag bu ñu fa dajee. ah nañ dem rek ñàkku ji. comme ñun ñi di wax tamit dañuy dugg ci laam ya di reporté <laughs> naa suba dinaa ñàkku xulli na ñàkku. keneen dina ñàkk man dinaa ñàkk incha allah rabbi waaw ah, ndax des fois da ñëw ci làmb mënu cee mënu cee ñàkk ndax kuy ànd ak na Sénégal yëpp waaw <laughs> foofu la ñuy ndar li nga xamante ni moo nekkoon euh, journal de l'arène mm-hmm. euh, di leen jox rendez-vous incha allah rabbi demee ci kàttanu yàlla ñaan ndox mi suñu borom di wàccee mm-hmm. yàlla na doon ndoxum jàmm ndax suñu borom lépp lu muy def ci doomu aadama bi jàmm lay doon di ñaan a amaat yaakaar bi te am mm. naa ci yaakaar sax ci kàttanu yàlla ak ndax mm-hmm. réew mi ay borom nit ñu baax ñoo fi nekk te lu ñu ñaan yàlla saa borom def ko waaye di ñaanal soxna si nga xamante ni moo tëdd ci biir suuf muy soxna Lobé yàlla na ko sunu borom yërëm ci barke Seydina Mohamed ñi nga xamante ni ñoo ko def jëf ju ñaaw yàlla leen sunu borom feeñal ci barke Serigne Saliou suma yaakaar waaw amin la ñuy wax Abdou def katab lu ñaaw moom lu ci mën a xew lu bon ak lu ñaaw bu la mayee immeuble bés dina ñëw nga bëgg mbaar moo fanaan mu tëla dëgg la parce xam lu tax yàlla ko a yaa ngi dégg mm-hmm. ñun ñi toog na xamuñu sax naa xam ñu ngi def lu baax mm-hmm. waaye nu ngi ñaan yàlla mu xeet ñu ci xeet képp koo xam ne doomu mm-hmm. aadama nga waaye defe naa jëf jooju nga wax loolu soxna suus ñu doon wax Lobe Njaay loolu euh, dañ doon sonal seen bopp rek moom tey yàlla faat faatu na waaye ñoom itam fanaan seen seen li des ci seen dund dina metti dina metti wallahi la dina metti te te ëllëg nañ ko fekk dinañ ko fekk loolu nag liñ ci wax mooy Sénégal dama naan autorités yi nañu gën a taxaw parce que dëkk bi léegi dafa bëri ku jóg abdu rek ne maa man nga damay def lii damay def laa lu ne nga di ko dégg façon wax bu ne nga di ko dégg di nappe mhm. topp réew mi mbooro réew mu Serigne Touba ne mhm. maam alaaji Malick ne fa mhm. maam Limaamul Mahdi yu tëdd fii ci Yoff maam Kunta Njaasaan maam Baye ak Abdoulaye ak ak ak woy juram ca Mirina ak lew na nga dem Ceneba dem fi nga xam ne nii moom mooy fii ci Njaasaan ba ba ngay dem ca ay dara ya ah? ba ci suñu mbokku chrétien yi defe naa ne ñooñu lu leen amul lu leen të mhm. ci seen diggante ak seen borom mhm. parce que lu ñu liggéeyal seen borom la mhm. kon nag ñun ñoo war a amuk mat am fayda ju toll ni yenn wax yi bu la ko nit di wax nga ne ko sëñ bi dimbali ma te dem sa yoon mais nag bon fi mu nekk nii doy na waar daal mhm. yàlla nañu yàlla musal te aar ñu barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën ñoo ko topp mhm, ñu toog ñu dégg ndigal te di ko jëfe parce que tamit loolu rek moo ñuy amal njariñ mhm. ndigal li nag mooy di déglu suñu kilifaay diine yi lan digal te du génne yàlla nee na yonent bi ne ak liggéey ndax dégg naa suñu sang bu baax Serigne Salim Mbacke mu daan wax ne lu dul liggéey ak jaamu yàlla awuma ci defar awuma ci yàq ku bëgg a nopplu nag ci lii ngay ne mm-hmm. mais keneen ku dugg ci leneen lu dul loolu mm-hmm. bés dina ñëw danga nga sonn coono boo xam ne kenn du la ne massa wala doo ko la ne massa dafa leer Babacar am di la ku ñuy seetaan mm-hmm. rawatina tamit ñi nga xam ne dañuy bind di commenter di jamais lépp lu ñu fi bind rek wala ñu commenter ko rek bàyyi nañ ci xel bu laajee defar dinañ defaru <laughs> bu dee dañ ñuy soñ ñu gën a avancer jëm ci kanam bu dee encouragement la tamit dañ koy gën a doxal parce que àddina dara matul waaye waa ji wax na démb nee na ak yaay commencé naa taw kon Babacar. mën ah, naa bëgg nga bay ah <laughs> daa nga bay. man de man naa bay ndax daaw góob naa ba dugg bu ànd fa. ndeysaan macha allah.